bi ñu ko laajee dafa ne dañ ne premier ministre bi dafa defoon délégation benn deful ak deful délégation. délégation. chauffeuram la àndal ne xaaral ma dem doxi farate gi gaaw ñëw ba mu yéegee sëñ Seex Coro la woo mu ñëw introduire ko ci biir ñu ne sëñ Seex Coro honorable député maa ngi koy nuyu génn ba kook sëñ bi. am na yenn ci xam nga xel aussi soose soose gis nga xel lu jariñ lu dul xalaat dëgg la bon mais nag xam nga ku ku jóg pour yàq la waaw kenn mënu ci dara nit ku jóg rek ne kii xaaral ma yàq ko soose kenn mënu ci dara mais ku pour yàq la soose rawatina koo xam ne yow sa biir la ne ñun ñëpp ñoo dëkk ci biir dëkk bi soose loolu nan lay demee loo ci mucc malheureusement euh, xam naa ni dina am benn histoire boo xam ni ci koo xam ni ku ma jege la def ma ko hmm. nañ ci dellu si kaa ñu toog ci lii imagineel yow yow yaa wax de yow yaa wax ne huis clos bu dee nag ñun dégguñ tubaab ñu dégg ay tubaab. loolu laa léegi définition huis clos ñu dimbali ñu génneel ñu laros bi. définition wax ñu lan mooy huis clos. huis clos. tête à soose. Hmm. ñu ne sëñ Cheikh Thioro dafa génn. moom honorable député bu Touba bokk Pastef bàyyi jëmm ju tedd ji ak Ousmane ñu ne na ñëpp génn te soose bii mooy deuxième fois lu mel nii di am man benn bi témoin la man amee ay dara témoin man man mii hmm. mooy jour bi sëñ Muntaxa di jox Ousmane Sonko tàndarma bi jëmu ñu tedd ji ci boppam moom moo wax ne ku ci àndul ak ñoom. Mhm. kaayal nii mu am benn kilifa diine goo xam ne dafa jóge ci benn kër fii ci ci Sénégal kër gu mag kilifa diine gu mag toog nii jàkkaarloo ak ñun Aïda Mbodj Malick Gakou keroog Abbas Fall ak euh, Birame Souley mhm. ñoo fa nekkal pastif Habib Sy Moustapha Guirassi. Mhm. Euh, Maymouna Bousso ñun ñëpp ñu toog sëriñ boobu dañ ko mujj génnee dugal ko ci benn néegu sarale mu ne ku ci bokkul nañ dem. Mhm. la Aïda Mbodj wax ak li sëñ bi tontu ci Macky Sall dafa war a bàyyi Ousmane mu ñibbi mais soose maa toog di seetaan télé <laughs> <laughs> télé bi ne. mais damaa yéemu keroog. soos damaa yéemu. est-ce que. soose magum jëmm. soose toog ci télé. yow ña fa nekkoon. génn ñu ne Habib si lañ jox kàddu gi. mu ne sëñ bi jox nañu ab yóbbal pour ñu jox ko Ousmane grève de la faim bi lii ak lii ak lii ñu ne mais bu ñu wax sax lan la mais xam nañ ni moom dina fuité. dégg nga mbokki sëñ bi mën nañu wax mbooloo mi ne leen jox nañ ko tàndarma pour mu jox Ousmane ñu ne baax na soo see maa dégg waa jooju sëñ bi diw. ci télé bi. ne lan. sama bopp xam nga dama toogoon nii. ni da ngay toog ba seetaan télé te da toog. yaa eh, ngi jóg taxaw. <laughs> déedéet pexe bu ne def naa ko pour sama bopp bi ma teg ko ci fauteuil bi comme ça jël ndaag léegi tànk yi féetale ko kaw. <laughs> non. xoolal affaire bi dafa mel ni man fi ma toogoon noonu dafa mel ni ma jékki-jékki rek ay malaaka ñëw wala ay soldat wëlbati sama fauteuil bi man <laughs> man maanaam télé bi waa ji dafa mel ni bopp bi ci boppam dafa ñëw nii tànk yi jóg nii dëpp après ma ne waa. mais kii kii mu ne sëñ Mountakha kon lii lii lii la wax diw ak diw ak diw ak diw lim na lu tolloog ñeenti nit ne duñ jëlee parole. waaye ba ñu paree sëñ bi daf leen ne mu ne waa man man man. <laughs> benn moment ma génnoon lii sama ginnaaw ñeme yàlla rek. nam ñoom fidde. ñeme yàlla. te comme si dañu am la bonne information. mel na da koo fekkee woon. xam nga li jaaji taal bu ndem si yàlla gi ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeram <laughs> eh, eh, te te mu bokkoon ci porte parole Sëñ Abdou Karim benn vidéo dañ koy jàllale sax ma maanaam di fen ba mu jógi gëm say fen yow. Mm-hmm. Mm-hmm. malheureusement. malheureusement. maanaam yow da ngay wax loo xam ne du dëgg yow xam nga ne yow li ngay wax du dëgg. mais même nit ñi lay seetaan xam nañ ne du dëgg te yow xam na ne ñi lay seetaan sax xam nañ ne yow li ngay du dëgg. <laughs> mais da ngay dem ba jàpp ne yaa ngi wax dëgg. c'est hmm. grave. mais loolu loolu. dafa mel na même cas bi moo amaat. waaw non mais soose. Hmm. Hmm. mais xam nga bële sax nee nañu ñii mbooloo lañu mais yow même boo waxee ne mbir yi dafa fuité mais après yow nga expliqué loo xam ni comme yàlla ak yàlla yi mi xew foofu keroog ak ak ak sëñ ndaxa waa mais bii yoon ñaar la <laughs> ñaar ñu tëju ci nekk su ma bàyyi ndem si yàlla gi yàlla yàlla yokk leeram dafa am benn wël benn wëllëreem bu ko ñëw seet si histoire bu ko déggee automatiquement sama xel dafa dem ci mu ñëw na ko Chérif Chérif tey Chérif tey Chérif tey euh, tey gàmmu ko daanaka werante xaw na koo yàq mu ne ko ah mu ne ko ci suba gi la werante bi tàmbali daanaka ba ba ba ba ba ñuy dem ca tànt ba mooy fi ñu toogoon. mu ne ko waaye déedwaay mu ne ko ah kay xam nga diw da baax Malick da koo woo euh, da koo woo ba mu ñëw bu ko defee tëjoog moom waaye wax wax na ko luy tàkk te du fay <laughs> sama papa ni ko waay di waay di waay mu ne ko ñoom ñaari ak yàlla rek rek rek rek rek rek rek rek rek. <laughs> waaw moom waaw moom moom kon fu mu nekkoon. <laughs> waaye dégloo rek. moo ñëwaat nii dañ ne Ousmane nag jëmuñu tedd ji rek rek rek xoolal mu ne ko euh, xalif bi daal xalifu tijaan yi daal woo ko ba mu dikk ne ko góor ñeeg jigéen ñi nga xamante ni da leen di jaxase te mbir mi du diine sëñ bi wax ko wax yoo xamante ni nii laa wax nii luy tàkk du fay loo xamante ni nii euh, tarixa bi nga xamante ni nii euh, tarixa seex bi sama papa bàyyi ko ba mu wax ba daaneel mu ne ko aw diw man de dafa mel ni sa biir wax bi ngay ubbi danga nga ne ñoom ñaar dong ak yàlla de mënu ko yaay ah loolu xam nga ni moo su wax yooyu ko ko ko ko mën a dañoo tëju. waaw ah, ko xam ne yàlla leen léegi mu ne ko diw nag dama bëggoon ñu waxtaan. Mhm. xam nga jëmm ju tedd ji mel ni Serigne Abdoul Aziz. Mhm. Ibn Alaaji Malik mhm. du wax ak nit ba dënnam jug mu génn toog ci mbedd mi wax nit ñi ne leen. diw dama ko doon toroxal mukk te du koy toroxal nit de dëgg loolu dëgg mu ne ko waaw waaw waaw waaw da baax day da baax day da baax mu ne ko boobu benn ñaar diw mi nga wax ne jëmm ji da koo ba mu xas ko attaqué ko toroxal ko yow yow yaa wax toroxal de ne da koo toroxal toroxal koo toroxal a toroxal ba maa redi taali par extraordinaire loolu bu nekkoon kilifa gu toll noonu du génn mukk di nittili ay toroxal yoo xam ne dañ ko koo toroxal. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëw nettali ko ay xasam rek nit amul fitam waxantuma la ak moom mu génn ci mbedd mi di nettali ay xas ak ay toroxal yoo xam ni jëmm ji nga xam ni ñëpp xam nañ ne du toroxal doomu aadama nga ne nga ne da ko doon toroxal nga baax maa nekk na kuy toroxal nit rek waa ji jékki-jékki ne way moo ni wallaay Chérif lii lii rek a tax may may sawar di waxtaan ak yow. xam nga ne bu dul woon ci lii nga nekk nii ba ba ba ñëw fee tey nii waxtaan wi kon jeexoon na bu yàgg yàgg te moo ni débat ba mu fa jur laay sa xel nii mm-hmm. billaay lii rek a tax bëgguma laa sori mu ne ko nañ waxante dëgg wax ne dañ ko toroxal mu génn nettali toroxalam ci mbedd mi ak jëmm ju toll ni da baax Malick nga dafa toroxal nit da baax Malick yow dina toroxal nit ci réew mii ñetteel ba mooy da nga ne yàlla moo leen ñetteel xanaa dafa yónni Jibril ci yow alayhi salaam <laughs> dëgg yàlla. dalaa batale Jibril dalaa Jibril dafa commencé di ñëwaat mu ne ko li xam nga lii rek a tax man may sawar di waxtaan ak yow wax nga dëgg de yenuwul maanaa de yenuwul maanaa waaye nee nañu sëñ Cheikh Thioro gannaaw ba mu introduire audience ba huis clos ba pare Sénégalais yépp dañoo nangu ne amul woon Ousmane Sonko dina génn ci mbedd mi. mais gars yi dama doon ruubee Diomaye mhm. ak Cheikh Oumar Diagne benn. waa gars kaay leen ma wax leen président bi laa doon jaxaseeg Cheikh Oumar Diagne. waa gars yi kaay jëmm ju tedd ji bu ma tëjoog moom rek rek ci biir néeg kaay leen ma wax leen ne man awma bàmmeelu biir mhm. mais maanaam maanaam loolu li mu résumé. pour nit mën a mën koo gëm. du logique sax. Hmm. ay xaw xawma diwa diwa ko xam ci kaso baag yooyu xel moo ko mënul nangu sax. yéen taskatu xabaar yi de xam naa ne. yéen mhm. taskatu xabaar yi xam ngeen doy waar nag. voilà. waaw man c'est que man. bàyyi na man man man moom man man bañ na bëreeg loolu rek laa leen wax. Hmm. lii wax lii ma nit lii nii ne sama baay moo ko dund ak benn hmm. mbokkam ci Saalum gii ginnaaw ba mu ñëwee suñ kër doon ko seet si ki njëkk a ñëw ñu toog lii rek di waxtaan ci suufu sànce boobu ñu nekkoon lii rek laa ko nettali ma ne ko ndax Ousmane dina def lii ndax jëmm ju tedd rawatina sëñ Mountakha ndox dëgg yàlla rawatina sëñ Mountakha mhm. et di nga dem pour defar sax di dox yenn wax yi ah. loo xam ne xel moo ko dul na